Euh, euh, euh, fëgg la ràmbalal ma fëgg la ràmbal ràmbal na fëgg la ràmbalal na fëgg la def ay affaire ma micro yi booy jël bi sa ginnaaw bi duggoo ko sa ah, ku nuyoo leen ku eh, ku nekk salle de boxe nii nuyoo bu ñu santee yàlla julli si yonante bi sant suñu ñaari waajur maa woo waa Tëngéej waa Mbërina waa Mbaaw waa Grand Ba waa Ndoyen di nuyu aussi tamit suñu kilifa yi toog fii Baye Bala Mbuub maa lay ziar di la ziar di la nuyu bu baax Fallou Ndiaye lay nuyu di la woo si bu baax a baax jàpp nga sama créer lu bëree bëri li ma la rek maa yóbbu roi des arènes di la ziar di ziar ñi nekk suuf jàmbaar yi nekk suuf samuraay yi si suuf maa nga jël nuyoo di ko teg si loxo Papa Gueye ak Nduumaar ñu doxal foofu si suuf maa leen bëgg bu baax di nuyu aussi tamit sama yaay di ko ñaanal tawféex ak jàmm bu baax a baax di nuyu waaw Yoof Ngor Wakaam Almadi Trao di la <laughs> kenn ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli si yonente bi ñuy sant suñu ñaari waajur bu baax te leen di ñaanal bu baax ñu yàgg fi lool di sant suñu sëriñ borom ndigal Fall xalifa sëñ Cheikh Fall Baye Koor waa di sant àdduna di sant ngor gi ñu jógee di ko sant moom Karbala di sant promoteur Mor Diouf mm. di leen nuy di nuyu Bantamba TV di nuyu suñu papa yi su ginnaaw commandant Thioune di suñu yaay yi géwal yi di wax mes respect au chef de l'ordre waaw di nuyu sama mbokkum bëri sama moroom yi waaw di nuyu àdduna daal di ko nuyu moom bu baax a baax waaw suma grand frère nga. <laughs> xamante ngeen bu baax. ay lébu lañ xamante ne. Hmm. Mor man waxuma ay grand combat de. ñu lébu <laughs> la quoi. te lébu ku ko xam-xam ne dañoo jure ba pare. est-ce que xam nga ne duñ jure. laaj ma ñuy def. Karbala yooru man xam naa daane yow da ab tapet laal ab ragal laal yow ab kuus laal dama bëgg nga déglu ma. déggoo li xam ne bu at bi sifflé yow yow ah, ngay teg ni rek man. billaahi wallaahi maa ngi xam nga damaa def benn affaire. damaa bëre fils mu daan ma. ca xabal bu ñaaw. <laughs> ma dem sama papa reetaan ma. ma staanaat combat bi. waaw te ba xaaju guddi ma jóg saanaat combat ma xam ne lii ñàkk cër rek a ko waral doomu hmm. aadama kenn du ko ñàkkal fayda moom ma dem daan fi jaleeru daan Pape Janka wëlbatiku ñëw jëlaat ma que amul lu mu a wane foofu dañ ko fay xaalis xaalis a ko hmm. dugal adduna ñaar ko yàq muy xaalis ak jigéen xaalis a ko yàq xaalis a tax mu ñëw xaalis a yow Garba maa la man maa la ëpp doole téeméeri ah. junne yoon dama bëgg nga xool ma fii eh ah. taxul ma toog fii sikir nga xool ma balaa ma laa dóoram mbaj maa la man téeméeri junne yoon tanta dalal nga taxaw <laughs> taxawal li muy wax noonu loolu man bëgguma soñño ay fils de lire ak yooyu kooku ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal wér bu baax a baax a baax champion la ndaana ñu ngi ñaan mu gaaw ñëwaat si làmb lu ko daal am place dafa xawoon kii rek mais sëñ Fallou quoi ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax mais man waxuma ay fils de Lion man yow laa wax bam yow laa wax damay xeex yow duma la mënoo koo bañ bëréewu ma <laughs> di ñaanal sama fils bi papa Yada de di bu baax a baax a baax si kàttanu Yàlla. moo Mor yaa ñuy dégg. dama koy duma. dama koy duma. billaahi dama koy duma. billaahi wallaahi wataalaahi kii du taxaw di xeexam. barki Serigne Bamba. dama koy duma bëréew ma ak moom eh Karba déggoo li mu la barki Serigne Bamba dama lay duma bëréew ma ak yow cuuj bi lu ma waaw yow naa doon sa xoolal waaw cuuj laa mais cuuj cuuj cuuj bu xam sama lekk laa Karba laa cuuj laa bu xam eh dama lay duma dama lay duma pet nga bisaab nga da nga yëbbu damay yëbbu mettee da ngay daw rek xam on se connaît des doom léegi ah bon Modou Modou Diouf man boo may tëggal di bu ma tëggalaa lébu parce que man dama soxor dama agressif. sa agressif sa agressivité boobu noonu ah Fall borom digal loolu laa bëgg boo ma ko deful ah, baalu ma la. dama soxor dama xam fi ñuy dóor dama xam. Hmm? Eh, te loolu laa bëgg te bëgguma di xeexal loolu laa bëgg. neexuma quoi may dóor sama deret neexuma. loolu laa bëgg. tëggal ma ñeneen ñu dul lébu. combat xës na ba taxaw. mais nag dinaa la wax xës na ba taxaw. waaw say bëñ yi dinaa ko wàcceel. ngir yàlla dafa loolu. yow dama fas yéene maa bëri. ñaanal yàlla comme lekk nga yàpp tabaski. damay xeex ak yow. loolu laa bëgg nga xam doo xeex ak man. macha allah walaay walaay li ngay instant doo ko def. man la ah, bam ba jour ba. taalibe sëñ Cheikh Fall borom ndigal nga taxaw naan digal xeex taalibe Bayam Sata Fall sa mbir na. maa ngi koy nuyu di ko ziar maam booy. loo dund doyul. yow sa waa gàll duñ la sant na la xeexal ak man. damay xeex dama lay duma. combat bi kenn kenn du ma si conseil kenn du ma si conseil laa la wax kenn du ma conseil si combat bi ku si conseil du ma la wuyu. a abandonné maa ngi tàllal samay loxo nga koy fekk sa. dama lay duma dama lay duma nañ lépp. dama lay duma bëgg a abandonné maa dàq. maa xool de. maa la gën eh, eh, eh, leer laa la wax. foog mobilisation nooy ñëwee. mobilisation mooy laaj. 44 barki alxuraani karim noteegul nañ 44. ah bi ñuy ñëw léegi lañ romb uh, waa ji yor Ndiaga Ndiaye. waaw mais dañ ne ko ñu ngi dem ñaar parce que dañu xaw a tardé Mor moo ñu doon wax. ok mais bëgg nañ yegg ba 60 car. ah. billaahi wallaahi wa taalaahi. ngor noonu lañ bëgg a ñëwee. maanaam dañoo bokk si làmb te par force dañuy dundal làmb dañuy dund làmb. da ngeen jël si li ngeen moom. dañuy yàq xaalis bëri di dagg ay billet avion dem di entraînement yi di ñëw di def loolu loolu suñu yaram. Hmm. dañoo booy. bilaay walaay dañu wax booy. affaire bi ne fii ne parcelle ñun loolu lañ bëgg a jëriñ ku ñu xam. Mm. xam ni si mobilisation. waaw dëgg la te li ma def si mbapat. rangale ko si bëree dóor. son premier combat laa ñëw ñàkk. Mm-hmm. ma ñëw tegle six jours victoire d'affilée. teel micro bi am ñu ñu ma yaakaar. Mm-hmm. réew mi topp sama ginnaaw tëngeej mbaaw. Mm. waa Caaroy. billaahi wallaahi du kii moo may téye. su ma ko waxee gëmm en tout cas combat la boo xamante ne ni mbokk téléspectateurs yi combat bu am solo la ndax ñoom ñaar ñëpp toll nañ noonu ci làmb ay espoir lañ waaye espoir lañ yoo xamante ni ku ci ne fi nga dëkk dañ laa yaakaar te aussi làmb yaakaar la acca Karbala wooteel waaw di waat baa bu fekkee nañ fi wàllu dépassé amul solo waxoo leen dara di jéggalu di son suñu mbokk mbër yi nuyu uma leen sànq di mm-hmm. leen ñaanal yéen ñëpp jàmm mm-hmm. waaw di nuyu aussi tamit monsieur le maire Omar Cisse honorable député kooku amuñu fayam comme ay pass cinq vlogu ticket la ñu jëndal macha allah bii ñu ngi lay woo si ba si huit vlogu ticket kooku maire bu baax la Omar Cisse mooy maire Tëngéej maire Grand aussi tamit di nuyu aussi tamit aussi tamit ñu ngi koy nuyu bi juróom bàyyi ma de damay wax sa yoon nekk si li may wax. ministre Ismaïla tamit aussi tamit ñu ngi koy woo si combat bu baax a baax di ko teg si loxo di Gotina. docteur Abdourahmane Diouf aussi tamit ñu ngi koy nuyu di ko woo si combat bu baax a baax a baax. a Sall di Ibrahima Sall ñu ngi koy woo si combat bi. xam nga yaay tooy. Lamine Diop Paco Boy l' international bi lii dama bëgg nga génn. waaw Paco Boy Paco Boy borom 99. waaw ñu ngi lay woo si combat bi ah. waaw ñu ngi lay woo ah, si combat bi kooku lébu la góor yàlla la ñu ngi lay woo si combat bi am tamit sama pro bi international maa lay woo si combat bi. ayca 4 bologu ticket laa la sas am Paka Boy 5 la sas. Amady Gare si aussi tamit maa lay woo Babacar Ndiaye président maa lay woo si combat la Babacar Ndiaye suñu père hmm. ñu ngi koy woo si combat bi bu baax a baax a baax di ko teg si loxo papi ak. waaw eh, Feugeleu baal kii woote. di ko woo di ko teg si loxo. baal woote ak kii nii Seydina. ñu ñëw jàpp si combat bu baax a baax a baax a baax di woo aussi tamit borom Dubaay ñu koy waaw suñu benn jigéen ñu koy waaw Fatima Jannatu borom Dubaay kooku xam nga lan la ma dig. billaahi barki Serigne bàmb boo daanee Feugeleu xam nga fan laa yóbbu Dubaay nga préparé combat. kii dina ma yàqal lool. kii dina ma xañ lool. kii lool. amiin waaw di oo aussi tamit waa Mérina yëpp Tëngéej Colobane Mengo B2 Jaloore Zege aussi tamit maa lay oo eh, Ousmane Ndoye maa ngi lay bégee Karba doy na Baye Baye maa lay woo Babacar Laay maa ngi lay woo aussi tamit tamit jëwrin borom dalal jàmm jàppal jàppal ma tànk yi rek <laughs> mooy loolu di woo ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax a waa rond ba waa basa xam nga waa pont maa ngi woo ñëpp ñëpp 100 pour cent Karbala bi ah bu góor bi ak bu jigéen bi jërëjëf ku jigéen ñu ngi teg si loxo lolo. góor yi di bëggee ñëpp di bëggee sama gaay kon daan nañ ci moom baax baax fëgg la woote fëgg la da ngay woote demul toog demul toog demul toog fenn mu naa lii demul toog waaw woote waaw ñuy woo fukki penjee ñaar yëpp hmm. waaw di woo ñëpp fukki penjee ñaar yëpp waa di woo waa Ngor waxaam Yoff Almadi Tarawo oh. di wax ne booy bool bul dof dof bul dof sinon dañuy dagg bi fekk la Amérique le 15 à le dañoo xewle yónneel ay millions ñu def nañ doon def parce que moo ñun ay mbëri ndaw lañ mais dañoo manqué jàppale ko waa bilaay. seen secteur. làmb ji fay nañu xaalis de. waaw mais mu Seydina Mouhamed dañuy yëkkati ay 7 millions di ko def suñuy làmb neexul gëm dëkk. billaahi wallaahi wa taalaay mm. dañuy dagg billet avion dem tukki def ay mois yu bëri da dund da ngay fay saal lépp ngay def yow xam nga ni mu demee mm. dëkku jàmbur mm. yee di profité di sant maam lamp Seydou Daba Ndiaye kooku duma taay di ko wax mm-hmm. lamp Baye Fall bi di ko wax na yow waaw boole naa la sañ seen ndigal Fall daal yow yàgg fi rek oh. waaw lamp daal yàgg fi rek mm-hmm. di woo suñu maman Khady Diop mu ngi daanu di woo suñu maman Khady Diop borom États-Unis borom Maroc borom mm. àdduna waaw di woo Ndeye Thiam di woo ñëpp Ahmed Anne xam boo limee da ngay juum mm. père Tahirou Sarr ngi woo ñëpp àdduna ku mën a ñëw mm. jàpp si bi nga jàpp si bi mais mënuma taxaw fii ba dem te du ma ñaanal Siteu sama rakk sama doomu nday sama suma waaw sama lépp ndax nee naa la weekend boobu noonu wala juillet boobu noonu ngoro ko moom yee dañoo war a di ko si teg di ko si teg di ko si <laughs> waa di woo ñëpp daal di santaat ñëpp di woo sa waa ji Paco bu yàpp bu bëriwul na saf waaw moom suñu grand la. jaajëf macha allah Modou est bëgg benn affaire. même benn affaire la ayca daa am lu ma koy laaj rek. mooy. ndax Karba dina taxaw raagax <laughs> <laughs> man ma papa xam nga la nuural moom. Ah. ay cee ay ay ay cerey mawa. cerey mawa ay bukkilaay ay jaaba jaaba wër na yàlla papa. waaw ala toujours pere yow. waaw mais ma ñëw mu la ma yoroon yëpp jox na ma ko mais ah. doon tenue bu ndaw. Hmm. man xanaa xamoon sama papa daan ma saaga sax na man ragal bi. Hmm. say morom yëpp a ngi bëri bëri woo. mais maa lay sant di la gërëm cere mawa yeex bukkilaay yeex. yaa xëñ yéex yëpp maa ngi kaa gis Free the Médio yi yëpp maa kaa gis def na effet fi mu toll nii maa na kundang <laughs> góor ga dëgër la ma këcc ma morom ba ma dóor ay bañam dina wàcc te kii dina ma wàcceel ay bañam aja dóor bu daanu ngir may ma loolu may ko loolu may ko loolu waaw waaw waaw aja da ngay ci suuf fee. xam nga di di di bëggee aussi tamit sponsor yi. waaw booy sponsor waaw booy king king. king ah waaw. ñu ngi koy woo aussi tamit. nice Matar Ndoye maa ngi koy woo bu baax a baax. si combat bi nice bu baax a baax a baax. aja tegal noonu. Eh, ay Mor Diouf macha allah mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne ni moom moo war a am ci bis bi muy bis boo xamante ne ni dégg ngeen li ci champion yi wax waaye dégg ngeen li nga xamante ne ni aussi ñi fi nekk di la monde de la lutte wax nañ ko ci macha allah ñuy félicité waat encore une fois Bantamba TV ci seen taxawaay parce que da ngeen jël làmb espoir def ko làmb bu mag da jël làmb boo xam làmb espoir la mais Pa Modou Mbaye félicitation chapeau yow ak s équipe. ñu ngi tàccul leen ma leen Bantamba TV encore une fois ñu ngi leen di félicité bu baax a baax a baax ci seen taxawaay ci làmb rëy na rafet na sang bi gis nga bis bi nga xamante ne moom la la làmb dara jaaleel muy bis bu rëy gis nga xale yi ci ñu war a ñëw te dama dama faral di wax naan làmb ku deful dara duñ la sargal tey nag sargal nan la lan nga wax ci bis bi ak la jeunesse sénégalaise ban ban ban kàddu ngay am booleel di jëmale bon en fait maa ngi sant yàlla di remercier ki nga xam ne moo ma tuddee bés bi. Mm-hmm. mu nekk référence parce que dama yaakaar ne nit su amee cofeel ci yow lay tuddee dara. Mm-hmm. xale yi nga xam ne ay jeunesse lañ tey am na nga xam ne maa leen mag wala ñoo ma mag. Mm-hmm. donc référence pour ñu xool ci un bon exemple. mooy que nañ xam ne lépp lu ñu ti def. zéro violence. Mhm. lépp luñ fi yàq suñu bopp lañ yàqal. dëgg la dëkk bi suñu dëkk la ñoo ko moom. Mhm. tey bu ñu fàtte ne heure bu ñu yàqalee keneen yaakaar na keneen la du kooku parce que kooku day def pour ñeneen. dëgg la donc nañ sant yàlla. Mhm. ñun ñëpp ñu xam ne lii foo ak ree la. donc neex na trop parce que dañu bëggal ñeneen. ku ci nekk am na fan su ku ci nekk am na ku ko bëgg. donc ñu ñaan yàlla ak ñu ngeen àndal ak ku muti doon juru làmb bi avant làmb bi après combat ñu xam ne ñu ñëpp ñoo bokk. ay vision am ci làmb. bon man vision bi ma am ci làmb mooy que ne xam naa ne culture la. Hmm. culture bi nga xamante ñun tey waruñ ko fooyee parce que waru am violence suñ seetloo suñu maam yi woon boobu ñun xamuñ sax. Hmm. mais actuellement nii nii bu ko nit ñi yàq. xoolal arène nationale nu ñu ko defaree nu mu rafetee. Mhm. man des fois taxawee sama kër ak arène nationale benn la. damay taxaw sama balcon di gis. Mhm. mais damay gis euh, du mbër yi mais ñu ñuy àndal la wala ñuy saboter. parce que dafa am ñi nga xam ne duñ bëgg yi ngeen avancer. donc yéen il faut tout le temps communication bi di jàll. pour ñu mhm. xam ne loolu ñuy yàq. suba ñun ñoo koy defaraat wala ñun lay ñaawal sunu visage. kon donc ñun ñëpp nañ. nañuy tout le temps nañuy wax ci loolu. Mm. ak ñu ñuy àndal ak ñi nga xamante dañoo pare pour saboter. Mm. ñu xam ne lii waruñoo di saboter parce que yow sa sa public ñëppay xam ne ni kii ànd ak public. Mm. ñeneen di saboter ñëw bokk sa biir public di saboter. di yàq. kon donc loolu ñun nañ ci bàyyi xel. mais gox bi nga dëkk xam nga ni goxu làmb la. waaw Pikine Pikine goxu làmb la waaw. Pikine moom xam nga goxu làmb. waaw Pikine moom vraiment. Pikine sama yitte lu mu faj mi ngi jàppale mbër yi. Euh, waaw am na mbër yu bëri vraiment ñoo ngi may seet si. man maa ngi def si ñoom. mais bëgguma aussi ngay def ci dara di ko wax. mais il garaawul. non garaaw na garaaw na parce que lu baax. waaw def lu baax def lu baax weesuwul tey ku am soxla mbër. ak ku mu munti doon nga ñëw taxaw ñu nekk ci jàpp ci pour mu mën a avancer. <laughs> waaw parce que loolu mooy avancement dëkk bi. tey mbër yi tey buñ leen xeeb ñoom ñi ñëpp ñoo ngi fay ay impôt ay juuti ah. donc kon loolu. ñoo ngi développé ci dëkk bi ñoo ngi développé ñoo ngi développé Sénégal. waaw yéen ngi tax tey seen seen xaalis moo ngi participer. à la nga ni. na solo jin ngeen ku baax jin ngeen ñu baax jin ngeen monsieur Djigo waaye jin ngeen sama xarit Ibulaay borom Ibulaay production borom Ibulaay production ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax bàyyi baa la mbu waaw loolu mooy li mooy nuuru laa jus yaakaar naa nuuru laa jano yaakaar naa nuuru laa moom Sénégal ñëpp xam nañu ko mooy boisson préférée sénégalais yi déjà tàngaay bi li ci ëpp solo mooy gis nga orange nuuru laa ak ak bisaab bi non bu ngeen ko ñemee ci tàngaay bi xam ni moo si mën waaye bii ma yor nii moringa buy bi dafa baax ci sportif dafa baax ci doomu aadama lii day faj mooy nebedaay mais nebedaay bi daam buy bii dañ ci defaale buy ma ma moringa bii moringa buy la macha allah am na solo am na moringa simple euh, euh, mi ngi ci station EDK oil yëpp boo leen fa demee macha allah am na fa ñu leen di bu baax a baax a baax waa Nuuru laa di leen kontaane bu baax a baax a baax bii basu baay baala la mais basu percure moom munul ñàkk per percure moom ala kulluwaal incha allah dina yóbbaale basam Mor Diouf Mor Diouf bis bi yaakaar naa ni taaru na dégg nga liñ ci wax. Eh, ñu ngi jëm ci càppaandaw gi billet yi organisation bi Diofi production sa première journée naka nga ciy ñëwee. waaw Modou Mbaye mën na ne label bi di Diouf production mën na bees si bëtu nit ñi waaw mais image Mor du lu bees si làmb déedéet daanaka mën na ne événement yu mag a mag dañ ko réussir si làmb dëgg la tey jii nag suñ defee lu mel nii wax dëgg yàlla dañ siy gërëm tamit suñuy frère ku si mm. mel ne ñoom Fallou Ndiaye waaw wax dëgg yàlla day sonn si man comme ni may sonnee si moom loolu lay mm. sonnee si man mm. mën na ne deel deel bu muy fëgala bu ngoor Karbala Fallou Ndiaye moo tax combat bi taxaw ok parce que tamit gis nañ coono bi mu daj parce que combat yi neexul woon taxawal. Mhm. ndax ñaari mbër yu am ginnaaw la nekk si yoon. waaw da dajale leen ku nekk mënoon na wéeri jaari feneen. Mhm. mais tey ji su demee ba taxaw adduna di si bàyyi xel grâce à Fallou Ndiaye. Mhm. mën nañ ne plateau de qualité bii nag wax dëgg yàlla ay moyens yu bëri lañ yëkkati def ko. xaas xaas xaas daa bëri. des fois da ngay gis mbër jëm yi rëy mais des fois mbër yi tuuti dañ leen di gën a seer. waaw parce que lan ne si ñii nekkul si ñu ponkal waaw parce que mbër yi koo si gis techniquement dafa doué. waaw en plus tamit ay mbër yu am ginnaaw lañ. parce que mm. lan tànn xam nañu ko. Mm. Euh, le 16 juillet daal bëgg na def événement bu mag a mag. Mm. Euh, le président Cheikh Tidiane Niang damay wax si moom tuuti rek. mën naa ne nit ku simple la nit ku baax. amaana li ni ban koy delloo njukkal sax wax dëgg yàlla bëggul woon sax fësal affaire yi. parce que mën nañ la le 16 Mm-hmm. su nu amee date bi grâce à moom saan ndax chaque jour du jóg di woo Bira Sène moor lépp lu ko war si làmb ji def na ko jox lañ ko date mm-hmm. ba tey ji Bira jox nu la 16 juillet mm-hmm. dañ koy remercier bu baax mënoon na ne lamsaar laa dëkk dëgg la mënoon na ne écrit laa laa yor waaw yem si loolu mais day sonn si ñun waaw moo tax tey jii mérité na ñu delloo ko njukkal si bis keroog keroog keroog bi yàlla dogalee mata di dal dal ñu ñun xale yi mhm. ba ñu yàq arène nationale ba mhm. njëkk fa yàq mhm. moom mooy indi woon entreprise am indi ay élément am ñu ñëw defaraat chaise yëpp moonte leen ba lépp normal waaw Modou loolu yàgg naa si wax samay interview yu bëri gis nga section stade bi les temps ñu dénk ko ku si mel ne le président Cheikh Tidiane Niang parce que bénévole lay liggéeyee man nee naa ko li ngay liggéey yëpp mën na ne directeur bis bu amee si stade dañu war a jël lépp jébbal ko génne budget bu doy sëkk chaque weekend lamb ju jeex ñu xool stade bi lan moo fa yàqu ñu monté waat. Mm. defaraat su ko mm. defee. Eh, stade bi day day kii mais l'essentiel euh, gis na ne ñàkk directeur stade bi moo waral des fois yu si bëri. yàqu mais CNG seen mandat day jeex le 15. ah. ah euh, loolu yaa ko wax <laughs> waaw. beneen bi tamit euh, le président. le président Abdoulaye Djigo. seen mandat day jeex le quinze CNG seen mandat la 15 la war a jeex. ko prolongé wuñ ko. bay prolongé koy prolongé. fi dañoo am ministre des sports bu fi prolongé mandat. na ñëw wax ci CNG bi bu dee dañuy fal ñeneen ñu indi ñeneen fal leen ñii def na ñaari mandat ba pare nañ dem troisième mandat boobu kenn d'accord <laughs> si. aywa ñëwal. per non ñoom per cuun ñoom ñooy làmb ji. per cuun per ci am ñooñu bu ñu demoon sax ñu ñu dem. mais maanaam dafa am teg yoo xamante ni nii. ça doit être changeable nañ may xale yi seen sens mardi seetaan leen bantamba di ngeen si gis lu garaaw ak ñëwal waaw beneen bi Modou di gërëmaat le président Abdoulaye Djigo wax dëgg yàlla nit ku simple la nit ku social la tamit moom li muy def si Pikine noor amaana su taxoon fii tey jii di ko wax da nga naan non non. di wax kii Pikine danoo dañ ko war a delloo njukkal jàppale ko avenir pikin la. Mm-hmm. waaw di wax tamit bëri na ku si mel ne wan sow moom laa jagleel fëgala mu ngoor Karbala di sama rak uh-huh. nekk si ginnaaw awoonu ba. Mm. ñu bokk benn unité seen may ànd ak magam. macha allah ñooñu ñëpp maanaam dañ leen dara jaal bis bi mais du yii kii dañ leen bëgg a wane parce que avenir faw ñu wane leen dëgg la al amin service la mhm. muy euh, Ifra. waaw nit ku baax xamaa ma Pape Modou ñu ngi si doon waxtaan. Mhm. nee naa ko même émission Père Beka dinaa waxtaan ak euh, Ifra. Mhm. mu sponsorisé ko. tey jii mën naa ne blouson yi fi ne yëpp moo ko defar. yëkkati ay moyens yu bëri jox ma. lépp pour sama réussite duñ defar ay loisir sunu e. incha allah non Père Beka yi ba seen ASC e. man moom dinaa si xaar sama tànk tubéy dina sponsorisé émission Père Beka. non Père Beka tey moo nu jox émission. <laughs> tey. bi ah Mor bàyyi nga ma yaa ngi si perbekaay léegi. émission bi rendez-vous la. waa amul problème tey vendredi bi ñëpp tey jii ñu ngi jàpp Bantamba TV. macha allah mais yaakaar naa ne kontaan nga ci ànd bi nga ànd ak Bantamba TV. waaw Modou xam nga làmb mënuñ ko wax. Mm. te génne leen si yéen da ngeen am cër si làmb. Mm. te làmb joo leen bëgg a def événement mun ngeen ko def événement. Mm. tey jii mën naa ne Pape Mour dama koy gërëm bu baax. man xam ma man dama fàtte chaque jour dama koy woo. kenn moom nee naa ko man yow yaay sama xarit. man bañ naa ko ba sax du ma du ma la woo. man du ma la woo du ma wax laay solal chaque mm. instant defal lii mm. defal lii. te du ma ko waxee noonu la koy defee. dëgg la dana moor noppi la lépp naa ko gérer. macha allah dëgg la di ko gërëm bu baax kuy sonn la. waa ku prix yi mën naa ne euh, dañ ko yombal. parce que tamit ku dajale lu mel nii nga jël supporter def ko deux 2000 francs jaadu na quoi mm. mën naa ne tamit nga jël amateur te bi amateur yi dañu fee bari. def ko cinq mille francs jaadu na. loge officielle bi xëy na dañu bëree invité si jour bi moo tax ñu def ko 10 mille francs pour suñu invité yi mën a am fu ñu toog. mooy wan ne jour bu spécial la di si gërëmaat al al amin service. di gërëm tamit Kandji production.